bismillaahi rahmaani rahiim dugg leen ci biir jàkk dugg leen ci biir dugg leen dugg leen ci biir u leen ci biir ubbi leen ubbi leen ñu dugg na ñëpp dem dugg aleykum mu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara ci guddi gi ñu ngi leen di massawu ci coono yi te di leen ndokkeel ci bés bi dafa mel na doo xaw a xam sax looy waxati ndax da ngay bég lool tabaarakallaahu hal alayya way xakmu in lahawtu min xaraji waaw dafa naa pàkkar ci sax dagan nag ndax itam fa tabaarakallaahu sëriñ Babacar Sy li mu wax ci Seyid Cheikh Ahmed Tijani ngeen way ko ak Cheikh El Hadj li mu wax ci yonent bi ngeen woy ko léegi ku mu jariñul lu lay jariñ fa tabaarakallaahu mu mel na kon nag sànq bi nuy dem ci oto bi sunu góor gi Cheikh El Hadj Aziz mi nu koy wax mag sëriñ Mansour mu ne gàmmu yi ñu paase yépp bu ren bi ma dàqal waaw ndax dafa mel na tawfiq daf ci nekk bu nekkul ci yi paase waaye fekk na nu it yëg nañu ko waaw tabarkalla tabarkalla mu di nu dénk di yokk ci la mu daan dénkaane yitte yitte nee na mooy sama jikko sonne dàq tooñ waaw ba ñépp mucc ci tooñ nee na xuluqi mooy sama jikko wallaay ndeysaan <laughs> nee na wa qurratu ayni nag nee na bët bu sedd maa ngi ko amee fi salaa bu ma wéeteeg sama borom nag nga xam ne damay dagg dund ndax dañu wax ni julli dund la uh-huh. dagg dund la dugg ci lu dul zamaan du makaan ndax dund dañu ko tënk ci zamaan ak makaan waaye déeyanteeg yàlla nag duggul ci zaman duggul ci makaan moo tax ñu nit doy na bàkkaar julli pëkk-pëkkal waaw ah, doy na bàkkaar ndax bu ko defee ba tey yaa ngi tënku ci zaman ak makaan déeyantewul ak yàlla waaw ah. waaye boo ko defee piir na ko ko cheikh waxe li boo jëmee ci sa borom pour jaamu ko di déeyaleeg moom nee na nga mel na borom alal bi fas yéene yéeg ci lalam di tëdd fokk mu dem sangu sol pyjama ndax nelaw ya mën a neex waaye yow itam boo jëmee ci sa borom daggal soxla yépp waaw na mel ni mësuloo juddu ba mu paase nga dellusi Uh-huh. ah noonu la di noonu la di boo gisee mag ñi di ko jariñoo looloo tax dafa leen di jox kattan bu mu dul jox kenn waaye bu dul mag ñi nag nga di ko def rek noonu këpp këpp këpp rek yàkkamti dal di daw dem sa yoon wallaay ndeysaan nee na loolu daal moom la wax Seydina Ali ni ko yii daal laa am ku ci tabax dund dund am njëriñ waaw yii daal ku ci tabax dund dund am njëriñ waaw kon nag daal moom mi ko man ba tabax ko ci ah rek yal na nu yàlla def nu di njabootam ba faw wallaay wallaay moo tax Sayyiduna Ali daan na wax ni waxinu woowu noy na gannaawam gannaaw nekku ca Mm-hmm. nee na waxin woowu gannaawam gannaaw nekku ca waaw foofu la nu mën a yem waaw gannaawam gannaaw nekku ca mel ni kon nag tabarkalla sunu kilifa yu baax yi tagga tagga tagga tagga tabarkalla li Cheikh El Hadj Malick wax yépp ci yonent bi kenn kenn xamul na mu toll kenn xamul lan la tabarkal yépp yépp ndax njaboot yi jariñoo ko ndaxitam réew mi jariñoo ko ndaxitam diine ji jariñoo ko ku ko xam ku ko xamul jariñoo ko waaw ndax ñoom noonu la ñuy liggéey ba ku leen xamul sax jariñoo ko waaw loolu leneen yàlla defal mel na feeñ na ci bëccëgu tey bi tabarkalla kenn ku ne ba nga jóg tàgguwuloo sa morom yàlla ak dundal si sa wëllëre ak yonent bi moo tax nga ñëw yàlla ak dundal sa wëllëre ak moo tax nga ñëw yàlla ak dundal sa wëllëre ak doomu Cheikh El Hadj yi moo tax nga ñëw fa tabaarakallaahu nun ñépp nu àndandoo ci di ay njaboot di ko bége xol yi ubbeeku jikko yi ubbeeku ah te it yàlla di ci def tawfiq ëpp naa xeeb nag bu nu yeboo rekk jàpp ci jàpp ci jàpp ci tey ñaan di ci boole jàpp ci di ñaan di ci boole di ñaan di ci boole fa tabaarakallaahu yàlla na yàgg mu mel na itam rekk njaboot yépp a ko bokk te nañu gën a bokk ndey ak baay waaw ñu gën a bokk ndey ak baay ñu gën a bokk ndey ak baay ndax tabaarkalla li mu daan wax ni diw wax naa ko dëgg ca mbooloo ma ne kenn du la bindal yiwu wax dëgg ci mbooloo yiwu xas jullit eh, bakkaaru xas jullit lañ lay bindal waaw wax naa ko dëgg ca mbooloo ma yal na fekk la nga wax di dëgg waaye kenn du la bindal yiwu ku wax dëgg ci mbooloo bakkaaru ku xas jullit lañ lay bindal waaw nee na soo ko ko waxul ci mbooloo nag xanaa da nga wéet ak moom ci néeg wax ko dëgg ga ba noppi génn gis keneen ni ko ah, sa waaye day fekk na ko ci néeg ba wax ko dëgg nee na kenn du la bindal yiwu ku wax dëgg ci biir néeg bakkaaru ku jëw jullit lañu la bindal waaw ndax yaa génne nettali ko keneen waaw karu ku jëw jullit piir <laughs> lañu laa bindal wallaay moo tax it xàmmee baax na bu ko defee yow nga jàpp jàppe ko fayda ah man bu wax dëgg jotee ma wax ko def nga musiba waaw bu ko defati mukk waaw waaw ko defati mukk ànd ak sago rek sago rek sago rek sago rek sago rek sago rek wallaay waaw ñëpp nun nu bokk ci ndey bokk ci bay tabarkalla ñaan ci gudd fan ñaan ci wér ñaan ci fajo aajo tabarkalla tabarkalla waaw loolu rek mooy li ci am solo xam naa bu loolu wéyee itam rek nu gërëm waa dëkk bi ci seen coono ci gàmmu am na ci ñoo xam ne bu burdi bi tàmbalee lañuy ñuy tëdd ci seen néeg ndax yàlla gan ku nekk ak sa coono te ko yëg ndax yéene boo sañoon lu ko ëpp nga def ko waaye rek it yonent bee toll noonu borom dëkk bee toll noonu ci waa wunu fii hal yumnu lil mutayaamini فما طار فيها طائر متشائم alaamatul mahabba waaw góor gee ko daan wax ni imaam Shafii moo ko wax moo nu ko daan wax bu nu ma saan di joxe hadiya maag sëriñ Mansour te muy ñaar yi niroo wuñu ndax la ko daan gënal mooy ñu niroo su demee wut wut ba niroo wuñu nag mu ne kon jox leen ma gannaaw nu jox ko gannaaw mu woo xale bu tuuti ni ko bantal ko wallahi waaw ni kon nag wan leen ma gannaaw ne kay moom bala balaa toog dana fexe ba muy ñaar yu niroo waaw ku ne mu jox la benn waaye bu demee dem ba amul ñaar yu niroo mu ne woon leen a gannaaw ñu woon ko gannaaw mu waxale bu tuuti ni ko bantal ko bu nga defee mu jël bant tudde sëriñ Mansour jël bant tudde ku ne kuñ ci teg sa bant rek ñu jox la wallaay wallaay noonu la ko daan defee moo tax ne ñu gént wala yi sax jarul tiitaro waaye maa ngi koy wax bi ñu nee tey la samedi ñu war a tàmbali burdu bi yàlla day moom moo ma ko mi ngi téye ci suñu ñaari mbagg yi di daw ci mbedd yi ci wawan yi billaahi wal kitab waaw ba mi ngi naan mi ngi naan fanweeri at la am ba léegi ba nun danoo mujj sonn fekk taalibe yaa ngi toog mu ni bu ma kenn topp ba ma dellu si kenn rek nu topp xaw ma kan la ndax ba ñuy dellusi ba muy tàpp tappal kooka laa dégg mu ni est-ce que xaw ma kan la nag ci njaboot yi pour wax la ni la mu nekkoon ba tey ca la nekk bàyyiwu ko mukk bés bu ne dama koy wax waaw la mu nekkoon ca la nekk moom ku baax la wallaay wallaay wallaay ku baax la wallaay def la nawle daf ko manoon waaw def la nawle te kat xam lu Cheikh El Hadj Malick toll moo tax xam na ko ndax Cheikh Mouhamad ba dafa mas di ñëw <coughs> mu laaj ma sëriñ Mansour ba ne ko dafa àggoon ci toolam mu ne ma kon nag dawal ca gaar ba teerul ma Tamsir Mbodj la àndal léegi Tamsir waaw ñu dem ca gaar ba fekk fa Cheikh Mouhamad Tulb mu nuyoog man ñu ni ko kii ba moo ko yabal doomam la pour mu teeru la mu ni wax leen ko ni ko bu ma yabalati mukk deretu Cheikh El Hadj mu di ma teeru ëpp na ma ak ni Cheikh Mouhamad Tulb toll ci tariqa bi li ko mujj di ko yedd yedd ko ni ko pour la lu tax lu tax mu di ma teeru di ko xul wallaay ni ko bu ma amati mukk góor gi ni ko dootu laa waaw nga doxi fii ci kër gi ba gaar bi di ma teeru si bu ma amati mukk yàlla xam na ko waaw wallaay wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay moom xam na ko kon ku xam ñi mu amal affaire la te affaire ndaw daf nu daan dal ndeysaan nu ngi koy nettali léegi alajab bi ci tàkkusaan ndax bi fi commandant koo nekkee benn commandant la boo xam ni dafa soxoroon ñëpp ragal ko ba ñu ne almaan la sax ndax ni mu toll woon ak kilote yi muy sol ak karawaas yi muy amee góor gu ko seen rek daw nu ànd ñun ñaar ñi kat topp mbedd bi xaleel du xam bu ko la moo def lan la ñu séen ko nag ñu ni waay kii li nit ñi ragal moom ngi ñu ni ak ñu ne nan ko tooñ wallaay nu woo ko rek ba mu xool nu koo ca kaw mu xool nu rekk nu mballeeku fëx waaw nag ndeysaan xam naa bu yëg ko <laughs> ci kerse gi daal di nuy woolu nu ñëw ba mësuma gis mukk ku yiw wallaay ba àgg foofu wallaay ndeysaan woolu nu ñëw rek toog du nu xool ndeysaan boo tooñee bu mu bëgg la yedd du la xool def luy xaw a ruus sa yedd du ko ñeme ndax Cheikh Al Hadj Mali wallaay ndeysaan ba jékki-jékki ne ah, mel ni dafa mel ni kat lay wax waaw mel ni dama xaw dégmati ni dafa am ñu doon woo ku lay ndeysaan nu xoolante rek sënk jikko ji ñëw mu daldi ni yéen ñii la walaay ndeysaan yéen ñi yee ko yéen a ko doon woo waaye nag nu ni pat mu ne ah, bu mu amati kat ñu ne waaw baax na kon nag dootul am wallaay waaye yooyu tabarkal la kenn xamul mbiram mbiram kenn kenn kenn xamul mu ni euh, bu sa moromu jàng ba nga wér boo tukkee mu ni doo jàng bu sa morom ñibbisi bi Serigne Mansour demee quartier wallaay mu ni ma bëral waaw waxtu ko yàlla génne bu ñëwee nga bind waaw waaw kenn mësu gi waaw wallaay xam rek Cheikh Hadji Malick na mu toll eh, eh, dama dem ndar di passé ji visite ci kaw xam ay bokk ku ne mu bind la ndar def ko xew-xew boo xam ni moo ëpp fukki ceeti walla yàlla xam na ko mu daldi di woo Serigne Mansour mii yónni ko ci Serigne Moustapha di ko yéen ñaar kat la bëgg ngeen yóbbul ma Cheikh ñuy ñëw rek jël ma yóbbu ndar yëpp mel ni dafay toj ma ni mujj góor ñëpp di dem soldaar lii bëgg a mel ni fokk ma sàkk ci pexe yàlla atte fanu dal ñu nga préparé palmaan yi préparé cawal yi tabarkalla jàlla bi ba demee ci kër doomu ndar yi ñu ngay waaj koo gis mu ni doomu Babacar dafa pa def soldat suba waaw wallaay ndeysaan <laughs> wallaay ndeysaan kenn desul wallaay wallaay ndeysaan Ousseynou Diop mii ma ni ko xam nga nu nuy def ma ni ko dal nanu fexe ba bala noo yeewu fekk man dem na mu ne ma ji loolu boo ko defee dëkk bi toj ma ne ko ndax moom lay def nekk la ñu julli fajar ba noppi rek ma topp takk ga waaw gi ba fa ñuy visite ma dem visite ba noppi toppaat takk gi ñëw rek dugg ci néeg bi ni pat bàyyi ba nit ñi xëy ba solo ba noppi jël si ma ne sëyt walaay ndeysaan ni ma nu dem ma ne ah, man def naa ba noppi di ñu ni lan ma ne ah ca fajar ñëpp daanu ci suuf ma ni waaw kay pour wax la rek moom ni mu déggee woon Cheikh El Hadj Malick wallaay kenn xamul boobu jëfante ci la nu màgg ci la nu nii moo taxit xaju ñu dudul ci teranga wax dëgg yàlla waaw ci yiwte ak teranga rek la xaj waaye lu dul yiwte ak teranga xaju ci ndax yàlla ak jëmmam kenn mësu ko gis kenn mësu koo gis bu nu ma sax ñëw toog rek bu sañsee dafay kontaan bu sañsee dafay kontaan waaw ni Serigne Mansour mii di def lay def bu solee mbubb mu ko neex daf koy yér rek waaw <laughs> walaay ndeysaan walaay ndeysaan bu ko defee bu nu toogee di déyante rek mu xam ni nu ngi koy jëw bu jékki-jékki ni waaw lu xew ñu ne ko mbubb mi mu ne ah wax dëgg yàlla seen maama ma ko jox de walaay ndeysaan walaay ndeysaan yooyu mooy dunde ruux walaay ba tax na loolu it tabarkalla tabarkalla noog yéen a ko bokk waaw noog yéen a ko bokk léeg-léeg léeg-léeg nga ñëw yàkkamti yàkkamti ñun leen dafa nekk ak gan yàkkamti yàkkamti ñun leen dafa nekk ak gan yàkkamti yàkkamti ñun leen dafa nekk gan ba gan nga génne di xale bu toll nii waaw ba gan nga génne di xale bu toll nii ndax xam ne ni rek soppe la wallaay ndeysaan xam na ni soppe la jaral na ko perdre journée mi yépp ba soxlam noppi wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan loolu kenn mësu ko gis sunu daara ja dafa neex wallaay ndeysaan sunu daara ja dafa neex bu nu dee tooñ di tooñ di tooñ ba sëriñ Aliou ñëw sëriñ Cheibatu ñëw mu faf yaatu wallaay ndeysaan di tooñe rek di tooñe rek di tooñe rek di tooñe rek di tooñe rek tabarkalla lu dul bés bi nu demee nag gis ko ni ko euh, léegi dangay sonn ci burd bi te nga bay nu burdal la waaw te guddi googa mu neex donc dama mel ni de jeex na ba noppi waaw waaw mais eh, dama mel ni doom de jeex na ba noppi walaay ndeysaan ca déwén sa ñu mburdal ko waaw fekk gaañu na waaw walaay ndeysaan walaay gàmm gu neex la te rëy walaay ngiy wëy isa lay mais ngiy wëy ca kaw ca guddi ga wallaay ñu wax ko ko rek man daanaka jeex na ba noppi wallaay ndeysaan nuy dem nag muy wax baytu boobu ida tamma amrun bada naqsuhu wallaay <clears throat> ida tamma amrun bada waaw di ko baamu rek nag waaw waaw wallaay wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan fa tabarakallahu yooyu rekit doy na rek sant yàlla wallaay doy na sant yàlla wallaay wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay ndeysaan jërëjëf barakallahu fiik jërëjëf jërëjëf wallaay wallaay ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan yàlla na jëm kanam wallaay wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan loolu baax na tabarkalla loolu ayul di tabarkalla tabarkalla fataana kon nag noonu rek la demee daani ki guddi gi guddi barke la kenn ku nekk rek mu sedd hadiyaam ci Cheikh El Hadj Omar ñu joxe ko waaw ñu ko daan defe rek tabarkalla wallaay ndeysaan wallaay hadiya wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay ndeysaan ñu ko daan defe guddi gu nekk rek